bokk yi ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen siyaar waaye di leen ndokkeel rek bu nekk ci weeru sang bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujj weer yàlla nañ ko fekk déwén waaye bu déwén di ñëw yàlla nañu fekk wér yàlla nañu fekk martaba yu kawe yàlla nañu fekk ñu mucc ci bépp safaan bi karamillahi wa rahmati xam naa ñu continuer rekk kom ni ñu daan barkeeloo ci ngoon bu nekk ci weeru gàmmu gi e, di nettali rek ci lenn loo xam ni dana jariñ ab jullit fii ci àdduna waaye mu jariñ ko fële ñu jëm tey nag suñu waxtaan ñoo ngi ko jëmale ci jullit bi yaakaar bu mu war a am ci boroomam yaakaar bu dëgër waaye yaakaar bi nag bu mu ko yóbbu ci naagu mu jàpp ni moom daal àjjana moom moom assuré na déedéet àjjana yàlla rek moo xam ko ca ka ca jëm waaye lu mu doy doy waar it lu mu kàccoor kàccoor bu mu jàpp mukk ni ci waa safara la jëm yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni céy bu ngeen xamoon li yàlla di am ci xeeti mbugal law yaalamul mu'min bu jullit bi xamoon maa inda la nekk fa yàlla minal uqubati ci mbugal su ngeen ko xamoon yéen jullit maa tamia kenn du xemmeem kenn du yaakaar maa tamia du xemmeem du yaakaar fii jannatihi ci dugg aljana ahadun kenn bu ngeen xamoon li yàlla am ci xeeti mbugal kenn du yaakaar aljana ak loo gëm-gëm waaye yonni yonent bi teg ci mu nii ba tey walaw mu bu xamoon it alkaafir alkaafiru yéefar bi maa indallahi la nekk ca yàlla min rahmatihi min rahmati ci yërmande bu ngeen xamoon li yàlla am ci yërmande kon ma qanita du nagu min jannatihi ci aljanam ji ahadun kenn kon yéefar bi la yàlla di waxal sa kufri gi lu mu bare bare yërmande yàlla ci xaj nga ci sa kàccoor gi bu mu tax mukk nga foog ni doo dugg aljana waaye yewit julit bi sa mbaax gi bu mu foog mukk tax nga foog ni yow aljana yaa ko aljana kenn moomu ko yàllaa ko moom kon ñu bëgg rek lay waa ji wax ngay doxe ñaari tànk wala boog ci lu gaa ñi gën a xam ngay naawe ñaari laaf waaw waaw euh, ñaari laaf yooyu mooy janaaxay xaw fi war a jaa tir naxwa malik na nga naawe ñaari laaf laaf bii mooy laafu yaakaar yàlla di yaakaar yàlla di yaakaar yàlla ba suñu waxoon ni kenn nit rekk mooy dugg aljana nga ni man la kenn koo kuy dugg aljana man la waaye nga di ko ragal di ko ragal di ko ragal ba suñ woon li yàlla bind yëpp kenn moo ciy dugg safara nga ni ah man naa am kooku kenn ki war a dugg safara man la su ko defee kon dañu bëgg bul naagu bul naagu bàyyi lépp ci loxol yàlla yàlla wax ni ci alquran mu ni inna almutaqina fi jannatin wa uyun yàlla nee na ne leen wóor ni daal ñi ragal yàlla ak lu manti am inna almutaqina ñi ragal yàlla fii jannatin ñoom ñoo ngi alcana wa uyunin ñoo ngi ci bëti ndox yu sedd waaw wama lahum li ñeelwa aljana min rafiin mansila ci daraja bu kawe bi yàlla waxee loolu nag ni inna almutaqina fi jannatin wa uyun ñi ragal yàlla ki ragal yàlla mooy ki nga xam ni li yàlla santaani moom lay dëkk di ko def guddeeg bëccëg li yàlla di tere kenn du ko ci gis kon ki nga xam ni yàlla dafa ko nattoo moy moom bakkanam da koo jiital moom daal bakkanam man na ko kooku nag yaakaaram bëgg a tas ndax bokkul ci mutaqina yi te na yooyu la yàlla dig fi jannatin wa uyun ñoom la dig aljana kàccoor bi ni kon man fu ma jëm ah kon man fu ma jëm mooy katu yàlla bi ni kon fu ma jëm yàlla daal di wax yonent bi fa xaala li nabi yàlla wax yonent bi ni ko axbir waxal ibadil aasina sama jaam yi nga xam ni dañoo dëkk di ma mooy wax leen ni waaw ana alxafuuru rahim ak sa moy gi lu mu bare bare bàyyil xel ni ana man yàlla alxafuuru may jéggalekat bi arrahim may yërëmekat bi puusunu nag kenn mu dem di mu dem wéeru ci mooy yàlla rek bëgg a sukkandiku ni ji euh, innahu huwal xafuru rahim déedéet ay in kunta shakur al karim lil mutiina waaye yàlla daal ak lu mën a am shakur yàlla mooy sant al karim mooy teral ñan lil mutiina ci ñi ko topp ñi ko topp moom yàlla da leen di takkal garaat teral leen dugal leen àjjana waaye kàccoor bi it ñu bàyyiloo ko xel ni fa inni ni ke man yàlla anal xafuuru may jéggalekat bi arrahim may yërëm lil aasina ñeel mooykat yi ndeysaan yàlla ci yërmandeem ju bare ji yonent bi sallallahu alayhi mu ngi nettali ci hadis mu ni inna rajulan waaw inna rajulan yu'mar bihi ila nnaar fa ida balaqa sulusa tariq iltafata wa ida balaqa nisfa tariq iltafata wa ida balaqa sulusayi tariq iltafata yonent bi mu ni dafa am benn góor waaw inna rajulan benn góor dañoo seet ay mbiram mbaaxam néew lool ak caay-caayam bare yàlla ni ay ca safara waaw safara escorte leen ko mu dem safara waaw ndeysaan waa ji daal di dox ay jéego waaw dox ay jéego dox ay meetar ay meetar daal di geesu geesu nga kuy dem safara moom doo waaxu dem safara moom doo waaxu tuuti geesu ni ko eh looy geesu ay ca ndeysaan mu daal di demaat ba ci kanam mu geesuwaat ñu ni ko eh sawaay waaxul safara nga jëm waaw dem ba ci diggu yoon bi geesu dem ba muy waaj a àgg mu geesuwaat yàlla ni e o oo leen ma waaji delloo leen ko waaw delloo leen ma ko fa yaqulu llahu yàlla ni leen rudduuhu dellool si leen ma kii su ma yasaluhu yàlla laaj ko wa yaqulu yàlla ni ko limal tafattalut looy geestu lan ngay geestu ndeysaan nag fii nag ñu gis nag jàng alquraan ni mu baaxee kon ñu dégg fa ni waa ji li muy bon bon li muy bare bare bàkkaar jàngkatu alquraan la bu xamoon li nekk ci alquraan mu ni ko yàlla sama geestu yi day lii la mu ni bi ma doxee ci kanam tuuti dama fàttaliku benn aaya boo xam ni dama ko jàngoon ci alquraan yow yàlla nga ciy wax ni wa rabbuka alxafuuru su rahma wa rabbuka alxafuuru ba jàng ci alquran yow yàlla yaa wax ci alquran ni wa ko sa boroom alxafuuru mooy jéggalekat bi zu rahma mooy boroom yërmande ji loolu maa ngi ko jàngoon ci sóoratu kahfi ci aayab juróom fukk ak juróom ñett loolu de moom laa fa jàng sama xel dem ci nag ma ni ah fa xultu ma wax ni ah laallaka xañ na yow yàlla sa mbaax gi taxfira lii nga jéggal ma mu ni waaw loolu mooy gestu bu njëkk ba mais yemoo ci benn gestu gestu nga beneen yoon mu ni ko waaw falama balaxtu nisfa tariq bi ma demee ba xaajal sama digganteeg safara te zakkartu fàttaliku naa xawlaka sa beneen wax boo xam ni yaa ko wax lan nga wax yaa ni wa man yaxfiru zunuba illa loolu yaa ngi ko wax ci suratu ali imran ci laaye téeméer ak fanweer ak juróom kon waa ji jàngkatu alquran la woon yow yaa wax foofu yàlla ni wa man yaxfiru zunuba kenn du jéggalee bàkkaar illallah ku yàlla jéggalekat bi daal yàlla dong la foofu it ah ma waxaan ni fa laalaka taxfiru lii xañ na nga jéggal ma mu ni ko des na beneen geestu bu mujj des na beneen gestu bi nga mujj gestu bi ngay waaj a àgg